asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 4 octobre 2021 dañu ñëw ak ci yëglikaay la lamu lañ koy dooreeti yëglikaay bi tey xëtamu njëkk moom lam ci xëy gën ko ca fësal bokk na ci Eumeu Sène ak Balla Gaye numéro de yëglekaay ba nag lam ñuy xamal mooy daal seenu combat jàpp nañ ko octobre mille 2022 ka fa jaar nag di Gaston mbeng sunu làmb moo xëy tey wax nu boobu boobuleem xibaar benn xibaar boo xam ne mu ngi ci biir sunu làmb mooy ka nga xam ne nii moom moo di Jax ak Gaston Mbengue yëglekaay ba nag la mu ñu indil tey daal maanaam ku ne dégg na fan yii ñu ne Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 léegi jëlee nañ ko 28 novembre yóbbu ko premier janvier mu mel ni ki nag wax jooju ba mu jigee ma moom maanaam am na tontu ka tontu nag du kenn ku dul Jax Jax nee na tey suba waxi noppi xalaatul premier janvier mu di ko bàyyi ak Gaston Mbengue ndax nag jàpp na ne loola am datam la moo ko moom joxewul ablewul te mayewul ndax nag ne na da cay tëgg làmbi simple fa nga xam ne moo di ci arène nationale onze millions la fa fas yéenee teg loolu mooy waxi jax ñeneen ñoo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom arène national la fas yéenee jëm si muy waarante DKR ña ñu dàqoon seen làmb ya làmb ya nag day ñëw le 10 octobre bii nu jëm ca arène nationale moo tax tey ba ñëw na di wax ca grand combat wa war a dox ci diggante ne kuréel ak Marley Zalba nag la mu gis mooy ki nga xam ne moo di nekk kuréel daal buñ dee wax wàllum favori moom la ci kaw ka nga xam ne nii moo di marle loolu gis-gisu saal ba la ñeneen ñoo xam ne ni moom ñoo ngay wane seen bopp jëlati nañ sunu làmbu door ba muy kaay baax mu mel ni kii nag écrit booba nga xam ne mu nga ca tëngéej ka jiite di góor gi siis moom la mu xëy xamle ne na sunu làmbu door état bi li mu war a def mooy jàppale ci ña nga xam ne nii ñoom ñoo koy amal muy waa sunu làmb mu mel ni ki nag juróomi yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu nekk ci kaw ci wàllum làmb ji daa mel ni ñett écrit yooyu yépp tëngéej la ñu bàyyeekoo moo tax yëglikaay bi jàpp na làmb dóor ji moom daa mel ni fi mu nekk nii tëngéej moo ca teg loxo di ca wane boppam bu baax a baax sunu làmb moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer fa nga xam ne moo di ca sunu làmb ca biir yëglekaay ba nag as gaawaan moom di am mbër mu ngi noy xamal ne daal moom ay adversaire am fi mu nekk nii daal déclaré na ren taxaw na dëkk leen ngir fas yéene nag bëree ak ñoom lambi simple ja daa mel ni ki nag soo bëggee dégg dëgg moom samedi ji njëkk ci bi saison bi ubbee ka njëkk a jël ab miis moom moo di Mamadou Moustapha Sall ñu naan ko fi da bat leen sikki loolu laal la ñu yëgle kaay bi xëy tey wax ne la général Malika defoon moom mooy ñaareel bi ñëw defaat ko leneen loo xam ne day maanaam maanaam mu ngi ci yëglikaay bi ca tuus ya muy Bombardier mi nga xam ne yëglikaay bi ne nag depuis ca réewum France ga mu ne de Paris yëglikaay bi ne na nag mu ngay feete quarante cinq am maanaam ñeent fukki atam ak juróom moom sunu làmb moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki doon Equivox su moom buñ fa demee la amoon démb ca Iba Mar Diop jag si tegoon fa 3 millions loolu la ñu yëglekaay ba xëy tey wax nu ko wala mu andil ñu ko boog ci ay image maanaam naka nga xam ne moom la faraa gañee booy fay ak naka nga xam ne moo di séeni bu bari ñi garee ab ab Ablaye Ndong ma nga xam ne moo dëkk fa nga xam ne moo di tefesel mbaa daan mel ni ki daal kon la ca des nag dinañ leen ko andil ca fa nga xam ne moo di Equivox TV mel ni kon weekend bi daal loolu moo fi amoon ci wàllum làmb jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay tey loolu lañ ñu indi la muy sunu làmb moo fi ñëw tey ak Equivox TV ci wàllum làmb waaw ak yeneen yëglikaay yoo xam ne ñëw nañ fi sax moo xam ay li TV la ak fu ne seen affiche fu ci nekk làmb mu ngi foon yaa ngi dégg li ko waral moo doon weekend bi waaye tey nag ci altine yi dañ leen di baal wax bu baax bi li leen baal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen aussitôt di leen jéglu tey ci fon bi ngeen dégg baat bi ngeen dee maanaam voix bi tey baat bi moom tey moom xam naa nag démb gëj def reportage bi ak démb rek ñëw làmb ja neex rek yaa ma gën a xam waaw ma teg ko ci moo rey baat bi xam naa ne loolu la waaye nag bon yàlla baax na mais maa ngi bëggee ñëpp ñaanal ñëpp jàmm tey nag defe naa fi may njëkkee mooy hmm, combat Eumeu Sène Balla Gaye numéro de ñetteelu combat ba ginnaaw ba ko Gaston Mbengue taxawalee amaguloon dat léegi nag gis ngeen yëglikaay bi ne nañu daal ah combat ramas bi moom 2022 incha allahu rabbi lañ ko fas yéene tëgg ci weeru octobre 2022 bii nu jëm yàlla nañ ko fekkete tal ko mel ni kon loolu des na un si kanam maanaam at waaye nag. yàgg na yàggul li am solo daal mooy ñaan yàlla yàlla may ñu wér kàttan ak tal ak fekke ba ba 2022 ñu xool fu ñuy mujje ndax ñoom ñaar seen combat li may wax rek seen ñetteelu combat defe naa ne heure bii waroon na fekk sax ñu bëre ko mais nag bon jaam ak pexem yàlla ki dogalam xëy na yàlla dafa dogal ne 2022 lañ ko war a bëree muy ñetteelu combat Eumeu Sène ak Balla Gaye numéro 2 waaye defe naa ne bi Balla Gaye bi Balla Gaye daanee Modou ba pare bëri nañu doxoon combat ba pour bëggoon ko tëgg mook Eumeu Sène waaye gisoon nañ ne boobu daa mel ni ëmm gisuloon jamono jooju bëri ak Balla waaye nag làmb dafa am na muy doxee yaa ngi dégg des fois day am na muy doxee parce que boo xoolee Balla dafa nekk ci benn performance ndax daa teglante ñaari ndam ci Gris Bordeaux ak Modou Lô ëmm seen ci contre performance euh, ñàkk digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Modou Lô ñàkk diggante mag ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers kon defe naa tey loolu nag su amee ci sportif di nga xoolaat yan. ya yoon ngay jaraat pour génn te defe naa amaat adversaire bu mel ni Balla itam baax na ci moom bu bàll itam li tax ëmma baax si moom mooy daf ko daan deux fois mu bëgg a fayu loolu moo lay wan ne kon ñoom ñaar seen combat daal macha allah yàlla nañ ko fekkee te tal ko dat ba nag sori na lool waaye nag yàlla nañ ko fekkee rek te tal ko ba tey bu ñu continuer ka tëgg combat ba di Gaston Mbengue yëglikaay bi mu ngi ñuy xëy di xamal di ñu wan nañu Gaston Mbengue moom mu tëgg ba boobu combat waaye beneen combat bu mu tëggal Balla Gaye mu war ko bëree le premier janvier mu mel ni nag premier janvier boobu nga xam ne moom la ko war a bëre Jax moom ne na loola du ci am parce que tax du ci am Jax ne premier janvier ab datam la te joxewu ko ablewu ko aalewul ndax nag ku ne xam ne ne ñu ngi déclaré woon combat Balla ak Bombardier 28 novembre foofu la ñu ko jàppoon mais ah ku ne xam ne ne waajur Balla génn na àddina bu yàggul te loolu xëy na bokkoon na ci réalité tax ñu pousse combat bi yóbbu ko janvier yaa ngi dégg waaye nag Jax moom gis bi mu amee daal moom ne na date boobu ab datam la da caa fas yéene teg 11 Ibama a arène nationale te naan loolu du ko def mukk di joxe ab datam loolu mooy wax yi Jax mel ni kon foofu ah njaw wi na fa des aw xam bu fekkee Jax Jax daa moom dat ba ci administrativement moom ne du ko joxe desu ca lu bëri kon booba combat des ko wutali beneen bés yaa ngi dégg loolu mooy liy am te itam yaakaar naa ne xanaa bu génnee bay wax loolu rek naa ne mun na dat ba administrativement waaye nag li may wax rek ñoom ñëpp ay promoteur la ñoo bokku teen bi des fois nag goj yi laxasoo waaye nañuy waxtaan dafay am solo bu ngeen waxtaanee xëy na man ngeen trouver terrain d'entente solution am waaye daal loolu moom mooy li nekk euh, le 10 octobre nag ñi moom seen date jaxasoowut waaw dajewu nag wala buñ ku ñu dajal ku ñu dajal ab date tamit arène nationale moom ñoo fa war a tëgg le 10 octobre mu muy waa ren TKR gis nga yëglikaay bi indil ñu marle ak nekkoril ka ca xëy di wax nag moom moo di zal ba di technicien nekk écrit moom nag daa jàpp ne ci favori marle la gis nga astafurlaa di moins nekkoril la jàpp ne moom mooy favori moom mooy favori boobu combat mu mel ni combat la boo xam ne bu war a neex la te bu nar a neex la incha allah rabbi ndax ne kuréel xam naa ne bëriwul ay defet génération ñoom Sa Thiès la heure bi waroon na fekk mu dépassé fii mais gis nga làmb de fois da dem bali yàgg mu am ay teq-teq yaa ngi dégg wala nga ñàkk ay combat parce que gis na bëri yaa ngi dégg su ma jumul Fallaye numéro 2 la mujj bëril daan ko. moom ne ko réel tey defe naa ne amaan na occasion bokkaat ci course bi ñëw ba nag li tax mu ne mooy favori boo ko xoolee na nga koy nangu wax dëgg yàlla ndax sport dafay am favori ak outsider waaye Marley tamit nekk na outsider boo xam ne ni bu jar bàyyi xel ndax ku mën a bëreel techniquement ñëpp d'accord nañ mën a bëre Marley te itam ah am na encadrement bi waaye nag daa nekk combat boo xam ne ci Marley tamit combat bu dangereux ndax dafa teglante su ma jumulee ñaari défaite moom Marley te defe naa boo teglante ñaari défaite jëm ci adversaire bu toll ni nekkuréel ah la la war mooy jéem ci am ndam ndax boo ci amee ndam tey man la exemple bu daanee nekku réel dina ko yóbbu fu sore sore sore waaye nag bu ca leneen amee maanaam bu ñàkkee ah dina metti ci moom dina metti ci moom trop ndax fa mu jógee tax góor gi siis président kaay baax du mel ni écrit ba moo jëlit sunu làmb door moo tax nag mbégteem mooma yemu ca mbégte ma waaye nag soñ na état bi ngir ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa sunu làmb ci sunu làmb doot bi góor gi si nga gis noonu muy écrit muy président wu écrit kaay baax mu mel ni kon kaay baax itam ab liggéey nga fa macha allah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi liggéey waaw moo tax yëglikaay bi ñëwaat na ci beneen mbir ne na boo xoolee cinq écrits yi nga xam ne ñoom ñu jiitu ren cinq écrits yi trois écrits yi ne ci kaw daa mel ni. wala boog cinq yooyu ñett gi ngi ci yoo xam ne tëngéej lañ jógee mu mel ni kon capitalu lutte avec frappe bi léegi Rufisque la toxu lambi dóor ji saa yu ñu classé ñoom ñooy nekk numéro un léegi ba tax cinq yi premier yi jiitu ci saison ren bii nii jeex ñoom ñu nga caag trois écrits loolu nag moo lay wan nekkoon ñoom it ñu ngay liggéey wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey parce que tamit bon tëngéej ku ne xam ne ne dëkku làmb la ndax tefe sa fa ne te lébu bokk na ci li xam bokk na ci napp bokk na ci bëre ak yeneen ak yeneen waaw kon yaakaar naa itam buñ dee ne ca kanam day nekk lu am am solo mu ci profité du nuyu waa Rufisque yëpp yëpp yëpp yëpp du ma bàyyi benn doomu Tëngéej waa Rio comme niñ koy waxee man ngi ñu di di leen ñaanal jàmm Bombardier tamit fent na 45 am ca Paris yëglekaay bi wax nañu ko ah mu mel ni ko loolu itam lu am solo la ah. muy lu am am solo moom Bombardier war a jëm ci combat wu MMA moo ko euh, waaja ah le 23 octobre ñu ko ci ñaanal ndam ah 45 euh, ans nag wax dëgg yàlla ku dund ba am ko moom ah alhamdulilah rek nga mën a wax ñaan yàlla mu yokkute yàlla gën a guddal fan yi wéral cër yi loolu lañ koy ñaanal yàlla waaw waaw parce que itam àddina moom noonu lay doxe waaw noonu noonu la dome bu nu continuer dem Equivox TV gis ngeen final ba ngeen fa fekk Boy Faye Franc ah ak Abdou muy luur ak lese Franc jël luur seeni bu bari ñi jël lese mu mel ni kon ñun tamit ñu ngi leen di féliciter di encourager ñi ñàkk waaye loolu loolu mooy làmb des na nag ay vidéo yoo xam ne mu ngi ci Equivox TV di ñëw ci wàllum làmb jooju waaye tamit tey jii di ngeen am ci seen émission Arena Hebdo Boy Faye mi nga xam ne moom moo ñàkk dem par avertissement yaa ngi dégg ak ka nga xam ne nii daal moom moo di Mamadou Moustapha Sall bi nga xam ne fils de Bazen Sikki bi njëkk a gagné ren lambu dóor bi fa nga xam ne moo di ah safur la lambu simple bi ca fa nga xam ne moo di terrain gàll gi ñoom ñaar daal laa fas yéene jël tey wanale leen ak ñoom ñu toog yéen fii ci seen arena hebdo waxtaan ak yéen waaw di leen wax tane tey loolu moo fi dikkoon ci yëglekaay yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waaye di wax koo xam ne ni tamit moo ma solal démb te gis nga tey lam dafa te muy Aliou Sall Aliou bu yankaaw nekk ca marché caaro yi di jaaykatu yére bu mag a mag a mag di doomu bawal ñu bokk mbomboy waaw parce que man sama yaay mbomboy la dëkk yaa ngi dégg kon defe naa su ma waa mbomboy solalee wàcc nañu rawatina nag Aliou Sall di rakk ngoom Sall te lépp Ngom a ko waral ndax Ngom moom mooy kilifa gi Aliou ñu dénk ko liggéey ba muy liggéey di xale bu yaru bu am ak taalibe taalibe sëñ kër Si ma leen di nuyu bu baax a baax waaw ñoom ñoo ñu nekk caaro yi Aliou Sall ak jarbaatam yi bu fa nekkal ak magam yi Ngom Sall ak seen grand frère yépp maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di wax ne démb moo ma solal te gis nga tey lim defati ci nay ah, Aliou kenn du moom numéro téléphone am boo demee marché Thiaroye da ngay def 77 056 10 89 77 056 10 89 kooku mooy Aliou Sall Aliou bu Yankaaw marché Thiaroye la ne bu ko kenn jaawalee dem leen seeti ko yére yu baax lay jaay waaye tamit Rimka Couture tamit maa ngi koy ziar ndax moom mooy tër bi ma njëkk a ñawal hmm, ma man ak Lamine ca Lutte TV la woon loola. du démb tay la te ba tey mu ngi rafet kon rim kaaku tiri yàlla na ko yàlla gën a may kàttan gën ko dooleel sama xarit la suma nit la di ko nuyu ah doomu ndeyu Tidiane Dabo borom Suisse Gold rim kaaku tiri yàlla na sa jàmm yàgg maa ngi lay nuyu di nuyu bàmba xaadim tit ñu naan ko bàmba ak yaay Couture nekk ca Anne Maris moom tamit des fois mu solal ma yére acteurs yi nga xam ne ñu ngi may solal yépp ah du ma waaw ñi may ñi yëkk seen yére di ma jox waa Petersen ñoom Babacar bu Modou Lama gaa yëpp maa ngi leen di nuyu waaye Omar Tawa tamit borom marché asalem moom tamit des fois mu ñëw lu rafet jox ma ma sol moom tamit kenn du moom su ma waajooju di ko ñaanal jàmm moom tamit ah di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Babacar ak Serigne Fallou ñaa ca Maroc moom ba Maroc lay yónnee GP mu indil ma ay yére fii senegal ah ñoom ah. Euh, gaa yëpp daal suñ ah maam libaas loo Barcelone moom tamit duma ko fàtte damay nuyu ñëpp parce que ñëpp dañu yàgg ànd ak Babacar te ba tey tout le temps rek ñu ngi yeesal seen ànd ak man waaye bu naa ma taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu tamit maa ngi koy béggee depuis Maroc moom moo ngi entre Maroc ak euh, Europe daal foofu la nekk di ku baax di sama xarit moom tamit maa ngi koy béggee bu baax a baax mais di nuyu samay soxna nag ah <laughs> mais madame doon lañ koy waxee ah maa ngi leen di siyaar di ñaanal jàmm waaw yal na leen yàlla musal ci cat musal leen ci saytaan ak ub yàqat parce que nag ay borom mbaax ngeen tey borom kilifa ngeen sama soxna yi maa ngi leen di ñaanal jàmm muy soxna Teneng ak soxna Aram yàlla na seen jàmm yàgg di nuyu waa ak yaay yëpp sama village ba duma leen fàtte ak yaay ca kanam itam maa ngi leen di bégee bu baax di nuyu président bi Malick Diouf xulle ba suba incha allah rabbi jàmmante nañu ah oui bon sëf la ah oui attention Jackson daanu